safando dit ke malkamago gormatam beskendo yay mbokki Sénégal mbokki amateur yi Juufi production dellu si na cinquième journée am ci saison 2024 bi lee muy le 17 août ci arène nationale ci combat jinne combat njar combat espoir muy dox ci diggante caatu kayre ak bébé Jackson di ñaari mbër yi nga xam ne bu ñu dajee xolu amateur yi sedd loolee mooy première édition drapeau Serigne moor le grand marabout di mara bi nga xam ne mbër mu mu yóbbu stade say mbokk kontaan te xam ne ndam ngay ñibbee ma ne spécial ba mu ne mooy dox ci diggante Cheikh Bari ak Laye Birisli loolee mooy deuxième drapeau président Cheikh Tidiane Niang responsable des écoles et écuries du Sénégal waaye diggante Boylo ak Bébé Jali loolee mooy drapeau Awa Ndiaye la lionne de l'intendant des palais nationaux muy jàmbaari fàkk tëdd di jigéen ju mën góor mu ne ma la ca gën neex nag mooy combat préliminaire ya ndax dañoo xool xale yi tolloo doole xale yi mën bëre lool te teel a am coow mu daal di leen di boole premier combat diggante caatu golf ak caatu marché Yille Baba ak caatu Daouda Fall numéro 2 Pape Mbaye numéro 2 ak frontière 2 Mbool ak Calki Boy Sila ak caatu Tunduba Hamza ak deux bu jànk xalaar caatu Moussa Dioum ak Ngel Kokki ma ne ah mbokki amateur yi kon bés a ngoog le 17 août ci arène nationale ñu fekki Dioufy production ci diggante caatu Kayre ak bébé Jackson muy combat bi amateur yépp di xaar mu ne sponsor yi ñu ngi ànd ak Tampico ànd ak Boisson King ànd ak Harmonian di sponsor yi nga xam ne ku nu gunge nga ñeme fa nga jëm ak établissement Touba Darou Rahman le ci wàllu bâtiment ak civil ñu ne entrée supporter 2000 francs bu dee loo francs kon yi mbokki Sénégal mbokki làmb bés baa ngoog Dioufy production ci ay combat yu amul fenn adna doma dom yaay ñaananam ko ci am andim ke fer na win waay Ama Dia numéro 2 ak Thiatou Yoff numéro 2 ñaari deux yi deux yi muy mbëru askan wi ndeysaan di usu tuddee boppam Ama Dia lu ma nee wax la ko tey ndeysaan mbëri tiktok mbëri internet yi mu nekk xale boo xamante ni tey nag togg na añ combat mi yooyu yëpp tey mi ngi soog a añ moo tax ba muy génn dafa jooy arbitre baa ngi wax ak ñoom li làmb bañ ak nangu journée Bamba Faye la mbokk yi muy sixième combat de la soirée ndeysaan Thiatou Yoff numéro 2 laaj na Ama Dia laaj na Thiatou Yoff arbitre sifflé na sixième combat de la soirée Ama Dia ndeysaan écurie yëmbal moo ñu féete à droite Thiatou Yoff numéro 2 ñu féete à ñi ngi lewaatoo ñoom ñaar ndeysaan Ama Dia mbër askan wi tey ndeysaan dafa jooy ma jooy mu ne xolam daa sedd ndax daa toggu añ ama jaayi noonu bokki moo def tent bi def tere borom open presse bu neex bi l'enfant chéri de yëmbal l'enfant chéri de benn baraag mbëri international ndeysaan mi ngi noonu moom ama jàmbaru askan wi mi ngi lewtoo ndeysaan caatu yoof sànni na reculé na Ama Dia Caatu Yoff numéro 2 Caatu Yoff boo nuree sa sa turandoo dina doy waar Caatu Yoff numéro 2 Ama Dia ñi ngi lewtoo Caatu Yoff numéro 2 Ama Dia arbitre baa ngi wax ak ñoom Ama Dia Caatu Yoff numéro ngi lewtoo Ama Dia Caatu Yoff numéro 2 ah dooraat na jël na ko lay daxi la la Ama Dia Caatu Yoff numéro 2 Ama Caatu Yoff numéro 2 man de usu benn loxo rek lay lay lay kiiwee Ama Dia daal benn loxo rek lay léetoo man moo jaaxal Ama Dia ndeysaan Ama Dia Thiatou Yoff numéro 2 ngoo kii tey li nga ma xas yëpp tey dina dina feeñ fii tey di nga ba naaw yow Ama Dia moo féete ñi ngi damante luy xew daa bëgg dem ay Caatu Yoff mii de jël na ko ah waaw waaw lii lan la nii Ama Dia da koo yéex a suivre ko jël na tànk bi jël na tànk bi. mi ngi jooy mi ngi jooy. mi ngi jooy lan la. waaw maa ngi sant yàlla. maa ngi sant yàlla. maa ngi sant yàlla. maa ngi sant yàlla. yàlla rek mu yàlla rek laa gëm. yàlla rek mu gëm. wàccee ko mu wax. wàccee ko mu wax. lay la xiila la mën askan waa yi noonu moom Ama Dia Ama Dia yi noonu lay la xiila la xoolal ma supporter yi xoolal ma supporter yi Thank you. jox la yàlla man Sénégal xooma lu leen defal yàlla mooy may yàlla moo ma may dama ne la woon ndam li su man bu ma ko may man yàlla rek laa yaakaar Babacar Karinton aw ma fayam lépp moom la dama gis nga xeex ak moom damyee ak moom mais bu jëlee ku kaawam tey indiwu ma xeex tey dama ñëwoon pour jàpp ko daan ko bu dóoree sax damay daw jàpp tey képp ñoom Alioune Sèye Junior dañ ñu mën a bàyyi xeex bu ma xeex bu ma xeexoon mu juumloo ma moom xeex. kan la non dañ ba ma fay moo ma dugal si làmbam ah. kooku sama nit la sama combat dafa yàqu mu dugal ma si maa ngi gërëm waa Sénégal aw ma seen fay. biir combat bi. yéen ñaar ñun dañoo gisoon Ama Dia boo xam ne comédien la mais bi nga duggee ci digg géew bi dafa mel ni dof bi da nga koo sol moo mais naanoo ko. man dofuma après si kanam ngeen ko ma dofuma di nga jàpp yéen damay dof dof lu ngeen yaakaar damaa dof dofuma. aba aba kan la. am am baba baba taat bi leerul baba nee taat kii dafa soxor. maa la dëgg yal na la yàlla fay yow sama nit nga may ma xaalis may ma saaf may ma saafara masi la aw ma fayam masi la masi la aw ma fayam Babacar Karinton aw ma fayam baba kii Zal Zal Zal Zal aw ma fayam billahi may jàllo maa ngi koy sant jabaru Aliou Seye Junior après da ngeen may seet ma sant ñu ma war a. Aba lépp moom la Aba aw ma fayam. te bëri na combat Modou Lo Siteu. combat Modou nañ ma xaar dama si bëre waaw. na ma ñëpp xaar xaar ma jël sama xaar ma